Euh, monsieur Thierno Amadou si journaliste ñu gën ko ràññee ci kanamu écran bi ci terrain bi euh, tey jii nga dugg ci politique euh, engagé wu ana tey lan mooy lan mooy sabab bi. xam nga man dama ni gaañ ku nekk ak fi nga toll jàpp naa ni yaa ngi politique doomu aadama bu ne boo bëggee si réew politique nag dafa bëri ay façon am na ñoo xam ne dañu engagé wu ci ay parti politique. am ñoo xam ni lañu nekk ci yeneen action yoo xam ni lépp luy doxal réew mi la euh, man nag yàlla dogal na sama métier maa ngi ci euh, am itam loo xam ne jot naa ko ci def ci li ma jàpp te doomu Sénégal jox ma ci cër lool ma ni su ma tollee foo xam ni dama war a décider politique dama koy wax ak ñi ma seqal réew mi ñu xam ni bis bi kat toll naa foo xam ne léegi dama dugg ci lii loolu waral ma siiwal sama sama dugg ci politique ma tànn nag président Macky Sall moom laay gunge euh, gunge bi nag du rekk gunge pour 2019 bi waaye moom laay àndal ndax bokk naa ci journaliste Sénégal yoo xam ne wër naa réew mi wër naa biti réew xam naa li mu doxal dëgg-dëgg kon loolu benn la ci engagement bi mais beneen bi engagement bi si gën a am solo mooy dama dëkk ci dëkk ci biir Fuuta ci département bu maatam ci arrondissement bu Ogo ñu ko naan Nabadji Civol di jàpp commune bokk ci commune yu gën a rëy ci région bu bu bu Matam ma gis ni commune boobu doxalinam am na lu des ma jàpp ni yàgg naa di bokk ci lu koy doxal waaye su ma duggee ci politique war na gën a bar ndax président Macky Sall ma wax loolu boo gisee PUDC mu taxawal ko boo gisee yeneen programme PUMA lépp liggéey bu baar la bëgg liggéey bu baax boobu nag mën a jàpp ne dama ci war a dugal sama loxo loolu moo tax ma ma ma dugg ci politique ànd ci d'abord ak waa Nabaaj jiital leen soog a nag teg ci ànd bi ak président Macky Sall. kon mooy euh, mën nañu jàpp léegi Thierno Amadou Sy bi ñu euh, dañu gis euh, jàppoon journaliste mu ci terrain bi nekk ci milieu médiatique bi léegi engagé na politiquement kon léegi cas double casquette mën nañu ko tudd ci côté boobu. bon double casquette man dama ne sama gars man sama engagement politique continuité la. cest di dire que euh, bëgg Sénégal ak yàgg di liggéeyal Sénégal ci loolu laa mos a nekk ci métier journaliste bi d'abord ndax bokkoon naa ci rare journaliste yoo xam ne tey Sénégal munoo lim fu ñu demul wër naa Sénégal xam naa li fi ne xam naa coono askan bi kon su ma politique xanaa dafay wéyal rek ci engagement bu ma amoon ndax sama engagement bi mu amoon ci émission déggoo par exemple boo xam ne animé naa ko presque pendant dix ans engagement bi ci nekkoon mooy Euh, dama ko doon wax sax ci émission bi slogan bi mooy fexe ba coono kan wi ñi ko war a xam ko mën koo saafara loolu engagement la woon ndax déggoo dañoon dem ci ñu am inondation dem ci ay dëkk yu reculé Sénégal wax seen i jafe-jafe te gis nañu fu ñu waxoon seen jafe-jafe bu ñu fa delluwaatee gis ne saafarawu na inondation ci banlieue bu Ndakaaru ay seede lañu gis nañu ci atum 2009 liggéey bu am solo bu ci télévision nationale def te déggoo taxoon na ba fu ñu jaar ci ëllëg sa sapeur pompier yi ñëw wala ñeneen ñëw régler seen seeni problème donc loolu engagement la woon mais tey nag beneen façon engagement la donc moo tax man ma jàpp ni continu continuité la euh, ci lu ñu nekkoon euh, dañ ciy nekk journaliste la euh, métier la boo xam ne da nga koy nekk daanaka sa ngir dund waaye nag xëj na tam booy politique. am na ci ay plateau yoo xam ne duñ la ci gisati loolu tam il faut nga honnête sa diggante ak waa Sénégal tey su may toogee ne damay animé benn débat politique RTS waa Sénégal wax ak man ndax su ma animé débat politique euh, PDS toog fii APR toog fii wala euh, Macky Sall toog fii beneen candidat toog fële man Macky Sall laay jàppale donc sot bi day feeñ te bëgguma mu feeñ sama sama métier mais tout les actions de de développement toutes les activités yoo xam ne ci loolu la yaakaar naa war naa ak sama métier def ko Euh, te du feeñal sama appartenance politique. waaw sa appartenance boobu sax ci yow nga euh, taamu président Macky Sall euh, mu mel ne dafa am ñoo tontuwaale ñoo xam ne ni xëy na ñoom beneen boor ñi ngi ñi ngi jàppale nit mais dañ koy nëbb mu mel waaw mais loolu <laughs> loolu dafa am xam nga nag Sénégal wax naa ko tam cest à que man dama am li ma jàppee honnêteté mooy jàkkaarloog waa Sénégal ne leen seen doom la doomu réew mi laa. dama décidé jàppale président Macky mais dama jàpp ni su ma ko defoon ne dama décidé dem ci opposition da nga gis ñu tàccu parce que Sénégal dafa am lu ñu jëlee pouvoir dañu foog ne pouvoir boo ci demee rek tekki la mais loolu il faut mu changer c'est-à-dire il faut ñu jàpp ni nit dangay ngay tabax sa bopp man dama tabax sama bopp laata may ñëw ci ci ci di jàppale président Macky Sall ndax ba may def sama concours CESTI admis ko dem jàngi journalisme. boobu xëj na xamoon naa président Macky Sall ndax Fatick laa jàngee nag fa laa amee baccalauréat te itam sama engagement politique dafa dafa dafa dafa antérieur que lii ndax maa ngi fàttaliku samay xarit waa Fatick euh, El Hadj laam Lam euh, ak ñoom Zal Fall xam nañu li may wax ndax ba ñuy sos ca Fatick lu ñu duppee woon am faw loolu 2007 la woon am faw moo nekkoon ànd ak Macky falaat Abdoulaye Wade boobu daa ay ñu nekk ndaw euh, taxawal loolu ca Fatick jàpp ci liggéey bi ba président Abdoulaye Wade amoon euh, deuxième mandat en en deux mille en deux mille sept donc loolu ak lii du benn donc man ba ma décidé ni dama ciy engage wu dafa fekk ma ma tàggat sama bopp ba pare dafa fekk ma am sama métier dafa fekk ma am sama xëy dafa fekk ma ne ci dara bokk maa koo xam ne xëj na dafa xëy rek jël yaakaaram yëpp teg ko teg ko teg ko ci politique loolu tamit il faut mu leer te itam ñu xam ni njàng mu ñu jàng. ci kàttanu yàlla bu ñu defaloon politique sax xëj na mën nañu egg fenn ci réew mi ndax nag ay doomu réew mi lañu te euh, liggéeyal nañu réew mi lu tax lu war a tax ñu am fi lu soob sunu borom leneen nag suñu borom ako koy soob moo tax ma bëgg Sénégalais yi comprendre ne euh, bu ñu foog ne nit euh, engagement am ci pouvoir mbiru intérêt la wala mbiru bëgg tàggat boppam li ñu bëgg mooy suñu ay diwaan engagement bu ñu am man li ma bëgg mooy na bàjj fileeg ay diir yu gàtt incha allahu rabbi ñu gis ay changement yu doy waar dama bëgg commune boobu fii ak i diiru gàtt ñu ne commune bi kat wax dëgg yàlla jëm na kanam loolu tam dama ciy préciser ndax boo tuddee loolu euh, ñu bëree foog ne xëy na maire la bëgg a nekk leneen la bëgg a nekk. pas forcément loolu. pas forcément loolu mais nag politique bi ñu dañu ci dugg ak ay ambition <laughs> c'est-à-dire que tam dugguñu ci politique pour jouer le second rôle. loolu tam wax naa ko nit ñi wax naa leen man sama système politique. te wax naa ko waa na baaji itam du politique boo xam ne dama leen di woo ci garage bi ngeen taxaw di tàccu di tàccul nit ñi leen pour ngeen sol ay t-shirt lu nit wax ngeen ne ko gonga non non non dama leen ne il faut ñu am benn façon engagement engagement buy jëmale kanam sunu su suñu diwaan moo tax boobu ba tey ba ñu commencé ci activités yu ma nekk yëpp activités yu yokku la la laa fi def journée médical consultation gratuite def ko ca nabaaji la laa fi def conférence religieuse ci weeru koor woo ay imam ak ulama au nombre de 47 ñu jàkkaarloog jeunes yi wax leen bu ngeen duggee ci politique lii ma war a nekk seen taxawaay nan ngeen war a def ba apaisement am ba jàmm rek di am loolu yaakaar naa ku dugg ci foo ku duggee politique ci foo doo ko doo ko def bañ ci jógee euh, barki dem ñaa ñu nga foon yóbbul suñu ASC lépp lu ñu soxla namuñu dara tey ñoo ngi jublu ci beneen activité boo xam ne dañuy woo ASC wu commune bi yëpp woo jeunes yi tàggat leen ci fair play tàggat leen ci arbitrage nu koy defee tàggat leen ci nan la ñuy euh, gérer nawetaan. mais Thierno loolu boo ko que tamit nekkul yaa ngi séntu euh, tey jii élection locale taxaw nga bëgg a samp dana ngir fas yéene jiite gox boobu. tey li may séntu lenn la li may séntu mooy 2019 bii février président Macky Sall faluwaat loolu mooy sama objectif premier tey du du ambition personnelle. ambition bi mu am ambition wu Sénégal la ndax pour man falwaat président Macky mooy njëriñu Sénégal donc sama objectif premier mooy président Macky Sall 2019 résultat am na bàyyi bañ a am dara lu ci tax c'est-à-dire que mu am fa score boo xam ne amu ko feneen te loolu daf koy am ndax parrainage bi ñu génne li ma ko génneel ci signature Nabadji dëkk bu toll ni Nabadji Nabadji kese waxuma commune dëkk bu toll ni Nabadji kese ma génne fa 800 signature c'est un village ci bi. donc 800 signatures yu ma fa génnee kon élection bu ñëwee ñu toj fa loolu benn la beneen bi mooy objectif beneen bi mooy fexe ba génne na bàyyi ci ay jafe-jafem moo xam nag ndax dañuy nekk maire moo xam ndax dañu nekk conseil municipal moo xam ndax suñu ay nit la ñuy def loolu ndax itam nit bul jiital sa bopp sama mouvement xaayeesu loolu laa ci wax gaañ man leen man jiituma leen ñoo ànd dem ñun ñuy ànd dem nag ëllëg kenn suñu mun na am ambition nekk maire mais dañ koy jàppale ëllëg keneen mun na fàqee feneen ñëw ñu jàpp ni kii bëgg na diwaan bi ware na ko mm. ñu jàppale ko waaye nag day wuti ak la fa nekk tey ndax la fa nekk tey euh, jàpp naa ni teggin amu ca yar amu ca liggéey amu ca gëm diwaan bi amu ca liggéeyal Macky Sall tam amu ca te loolu ñun lañ ko fay jëlee entretien di seen émission boo xamante nag Tawfekh Production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxool na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loole nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh Production mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi li 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wute tey mbokki internet yi bu leen ko tardé benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen o lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production